l'opposition kenn ki nga xam ne am na ci solo trop mi ngi en prison yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne jàpp nañ ne présidentielle bu ñu ci demoon xëy na du am euh, crédibilité bi nga xam ne war na war na ko am. waaw d'abord may apporter quelques clarifications rek yaakaar naa ne euh, question boobu nga ma posé muy li jëm ci report ay élections du ba du ñu bari ñoo ko wax kenn wala ñenn ci ñoom rek ñoom ñooy wax loolu muy notamment le leader de son parti. am na mu nekk quelqu'un boo xam ne ay xam ne duñu n'importe ci opposition bi. d'accord d'accord mais xam nga d'abord damay damay. damay politique du ëmb day xëy rek. d'abord euh, le la posture ak le parcours. de son leader monsieur Boubacar Camara qui qui est un modèle nekk référence fii ci Sénégal nekk nit koo xam ne aussi saa su waxee rek dafay génne xam-xam xam mhm. man je me demande sax moom nu mu def ba bokk ci parteem parce que waaw boo xoolee li mu toogee sànq ba léegi ak ni mu taxawee di attaque di wax yaakaar naa ni parti gën a attaqué ci plateau bi non d'accord dañuy wax rek dama ah, waroon na waroon na mën a am lu lu mu def ci moom tuuti quoi hmm. mais li ma xaw a gën a jaaxal ci moom li ma xaw a gën a jaaxal ci moom ba léegi question bi tontuwu parce que ba léegi waxul li tax ñoom ñu bëgg a reporter élection la situation politique voilà actuellement olof dafa wax wax am lu mu wax olof nee na coow li ci teen bi gars yi amul baag la. vous pensez qu'ils sont pas prêts. ils ne sont pas effectivement noonu la demee. parce que xam nga dama dégg avant moom benn candidat wala ñaar notamment docteur Abdourahmane Diouf waaw ak Pape Djibril Fall. Mhm. ñu ne nañ leen wax waa Benno Bokk Yaakaar ñu arrêté seen parrainage populaire bi nekk ci dëkk bi waaye ñoom fu ñu nekk man je me demande ñoom ndax dañoo parewul wala dañoo mënul. wala sénégalais yi parce que am nañ parrainage waaw d'accord parrainage du lenn. lu dul moyens yoo xam yu la yoon may yoo xam ne di nga mën a permettre waat nga delluwaat à la base remobiliser waat say troupes animer waat say say secteur ak say sous secteurs préparer waat les échéances à venir wut ay parrain ñu signer la nga mën a am benn coefficient boo xam ne di nga mën a def ay projection ci élection yi nga jëm. Mhm. mais loolu li ci gën a jaar li ci gën a gaaw li ci gën a gaaw pour un parti sérieux mooy nga dem def parrainage populaire ku mënul am parrainage populaire. yow yaay taxaw naan élection yi mënut a am. kon vous n'êtes pas pour un report mais report pour lan Sénégal élection yii fi. am fii mais bu permettre ñëpp bokk élection inclusive dama dama ne. élection inclusive ñëpp bokk il y aura une élection inclusive fii au Sénégal comme ce qu'elle a été. bu ñu mënee wax ne c'était attends man Mamadou man je me demande. je me demande je me demande dans je me demande dans quel pays sommes-nous Mamadou. réew moo xam ne li ñuy prédire yëpp boo génnee ci mbedd bi doo ci gis lenn école yi ñu ngi jàng. université yi ñi ngi jàng université Cheikh Anta Diop bul jël bul jël benn exemple benn hybride def ko dans la globalité université Cheikh Anta Diop boo xoolee li fa xew événement yi mars yi passé mais dama ne bien sûr mais du ñoom ñoo dugg foofu taal université bi taal amphithéâtre yi mais ñoom la enquête wanewul loolu mais mo effectivement attends non non attends attends Mamadou non Mamadou bul wax loolu peut-être yow sa nii nga mën a waxee mais ku ne xam na ni ñoom ñoo taal université université ñun jaar nañ fa yàgg nañoo dem ay manifestation yàgg nañ def front kenn mësta am audace dem attaquer campus pédagogique parce que foofu lañ suñuy di sàkkaayu xam-xam nekk. foofu la suñu yaakaar ëllëg jëf ci ñaaw joo xam ne ñoom ñoo ko def parce que ils ont payé des jeunes ñu dem siège ay fanaan université ay jours di waajal jëf jooju et avertiroon nañu newoon nañu troisième vague mooy gën a tàng foop wax nañ ko waxaat ko mais lii lañ nasoon dem di corporation yi liggéey ba wàcc ci bis di def ay cocktail molotov di taal kël nit ñi boo waxee ñu naan actuellement ni taux sàngara si dafa yokk nit ñi man je ma demaan sax moom est-ce que duñu xoolaat sax ay mbiram parce que yi ñuy wax sànq ba léegi nii yooyu ci Sénégal ñun xamuñu ko xamuñu ko ñun dafa dañoo xam wax yu yu yu yu ñu wodd yu am worma mais di acharné wu ci nit ñi ku taxaw nga ne ko sa sol yére bu rafet sax nga ne ko suma xaalis nga yor mel ni xale yooyu di fo boo oto bu rafet rombee sax ñu ne maa moom bii maa moom bii lu jug rek nga ne yow yow mais du noonu il faut comme soit plus sérieux nit ñi dañu nekk ci ci liggéey. li ci jàngat daal voilà mais opposition bi parewuñu pour dem élection bi damaa jàpp ni parewuñu wala du ñëpp bokk ñi ci parewul donc ñoom ñooy wax waxu report mais yaakaar naa ni benn nit. bu ñu téyee wala bu nekk am maay avec la justice nekk ci yoon warul tax ñu dep reporter ay élection parce que une seule hirondelle ne peut pas faire le le printemps et ba du ñu waxaat ñu waxaat ci tuuti ñun fii gis nañ fi ñu dem élection pare ñu ñu ñu assassiné président conseil constitutionnel moo gënoon a tàng fukki junni yoon gis nañ fi les éléments de les événements de 88 mais ñoom nag loolu la bañ mais du fi am du fi am ñoo leen gën a bañ te bu dee loolu la bañ ñoom leen dañ leen ciy ànd ak ñoom bañ la bu dee ñoom bu dee bañ dañuy ànd ak ñoom bañ leen ko ba tëdd ci ñag bi parce que kenn bëggul Sénégal déstabiliser parce que du intérêt kenn